Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. mooy fédération ji nga xam ne ñoom ñoo nekk Hollande ak ak Belgique ak France maamu ndaw mais Baye Fall euh, ma moo seen euh, moo seen kàddu bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ñaan yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi loolu te wér. ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ñaan yàlla nga yàgg fi loolu te wér. mbokk yi toog sa kanam nag ñooy say taalibe yi nekk France ak Belgique ak Hollande ñu ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo dajaloo den fédération di liggéeyal sëriñ Touba di la di di am pas-pasu euh, ànd ak yow liggéey bi màggal Touba gi jàll dañ koo def muy benn màggal ñoom ñëpp ñu àndandoo ko te itam lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéeyal Serigne tubaa dañoo am yéene ñoom ñëpp dajale seenu ñàq ànd kook yow moo tax ñu dajale woon seen addiya nag ne woon suñ màggal see dañ koy indi jébbal la ko tey ñaan yàlla ngi yàgg fi loolu te wér jëwriñ ji ñuy wax sëñ xaadim Mbegere surtout sëñ Mahmoud Mbegere moom mooy moom mooy jëwriñ ji mi ngi lay nuyu di bu baax foofa ca Hollande mbokki sëñ Abbas Dieye itam bokk ci mbokk yi nekk foofu Anvers ñu ngi fay taxawal itam ke sëñ Touba goo xam ne ña nga ca bu baax a baax di sàkku ak ñaan bu baax di la ñaan nga yàgg fi loolu te wér mbokki taalib yëpp ñëw nañ ñi ñëwut ñi ñëw tamit teewaa lañ nañ ñi ñëwut waaye ñoom ñëpp seenu ñàkk tàbbi na ñu fas yéene la ko ànd ak yow liggéey bi tey ñaan yàlla nga yàgg fi loolu te wér ok jërëjëf asalaamaaleykum Mbacke Elimane Wilane taalibe sëñ Cheikh Abdou Latif Mbacke waaw eh, Mbacke ñu ngi lay ziare bu baax Mbacke man mii nag lañ lañ yebal ma gàddu addiye bi bu ñëw jë jébbal la ko mu ngi addiye bi ngi toll si 3 millions daayira Belgique Hollande ak France ñoo ko boole jox ma ko jëm na naa ñoo jëbal la ko bisimilah bàkk waaw euh, sëriñ Mamour sëriñ bi day wax alhamdulilahi rabbil mu ne kàddu yi nga yëkkati gis na ko te dégg na ko baax a baax rawatina Pape Wilane mi nga xam ne ci jëwliñu Belgique yi ci la bokk muy waa Hollande ak waa France sëriñ bi sant na leen bu baax ci taxawaay bi ak yitte ji ak pëseet bi ndax xam na ne foofee ngeen nekk dangeen ngeen faa nekk nekkal fa sëriñ bi kon mi ngi leen di ngi leen di bàyyi xel waxtu di leen wétalikoo di fas yéenee fedd ay laxasaayam ànd ko ak yéen ba faaw di leen ñaanal suñu borom dimbaliñ ba daje tawfeex sëñ Tuubaa waaw waaw mu ne ngeen jëf mu ne ñu ngi leen di sant leen gërëm baax ci yitte taxawaay bi waaw na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah. amiin Mbacke amiin baal ma amiin amiin Mbacke waaw amiin baax na waaw amiin amiin Mbacke amiin amiin jërë ngeen jëf bismillah au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall